ngeen jëf mbokk yi ñu ngi am mbégte dellu siwaat ak yéen ci seen seen bi di Timis TV ñu andi leen nag émission wala rubrique bu bees tàq ñu tuddee ko lu la neexul ci réew mi lu la neexul ci réew mi nag Timis Media lëkkaloo ak www.timisactu.com ak Timis TV ngeen di ko seetaan ci YouTube ñu koy amal ngir gën a jege askan wi dégg leen suñu micro waaye dégg leen suñu ay caméra ñu waxal seen bopp li leen neexul ngir ñi nga xam ne ñoo yore dogalu réew mi wala boog ñoom la ñu dénk réew mi wala sax ñi nga ne sax am nañu kàddu ci réew mi ci fànn bépp bu mën a doon moo xam wàllu politique la moo xam ci wàllu wér-gu-yaram moo xam ci wàllu dem ak dikk transport moo xam ci wàllu commerce moo xam ci wàllu njàng ak jàngale te moo di éducation moo xam sax ci dundin yi ci biir kër yi ak bu liggéeyukaay yi biir mbedd mi ak lépp loo xam ne rek nekk na di euh, lu yitteel doomu aadama ci biir dundam kenn ku ci nekk lal ca neexul rek nga mën ko jotal ci seen seen Timis ngir ñu mën ko àggale askan wi Timis TV loolu moo tax ñu naan la scène acca ñu xool reportage bi ñu def rubrique lu la neexul ci bi réew mi. li mu naqari ci réew mi bari na trop ndax li ci li ci gën a fës mooy xale yi xëy ñu ngi leen di sàcc ci mbedd yi loolu doy na sëkk aw naqar te loolu dañ ko war a saafara ndax xale yi. xale buy xëy di jàng nga di ko dogale ak ñi nga xamante ni xale yi xëy na ñooy doon ñooy doon magi réew mi ëllëg leen di sàcc loolu aw naqar la ak chauffeur seen xëy na dañ leen di jël i leen yóbbu ci àll bi di leen agressé di dugg seen oto yi loolu ay samba booy la ñuy doon xëy dañ dem ba ci àll bi ñu wàcce la oto bi jël oto bi dem yóbbu loolu aw naqar li ma naqari ci réew mi man réew mi li naqari bari na waaye li ma ci man a wax mooy Touba Mbacke dañoo gannaawal li ñu war a defal defaluñ ñu ko respecté ñu gëmuñu ñu ba tax na kon lii ñu naqari boo surtout population Touba bi ñëpp am nañu leen naqari ci dëkk bi ci defee ni état bi ni fi mu war a fi mu war a jàpp ci ñun jàpp ko ci li war a saytu ci ñun li mu war a jox suñu gëdd joxuñu ko. la. Eh, eh, gouvernement bi. Hmm. loolu lu ko mën a saafara lu ko saafara mooy yéen ñi nga xam ne yéen a yor média yi ngeen jàllale leen ci lañ nekk nii waaw yéen ñi yor média yi ngeen jàllale leen ci lañ nekk nii waaw ba tax na bu ngeen ko jàllale nañ ko bëggee danañ leen ci sant gërëm leen ci mhm. jërëjëf li ma nakari si réew mi mooy problème mu santé am nañ ko ñun waa Touba problème mu ndox problème mu courant problème même sunu gone yaa ngi nii ay kayit ju juddoo yooyu yëpp dañoo am problème ak jaxase suñuy pièces tamit ndax élection day am fii nga bëgg a bëgg a bëgg a wate doo mën a wate ndax dañuy jaxase pièces yi yóbbu la feneen boo si ni doo mën a wate ak problème càcc tamit lu mu soxlaal lu mu yitteel la ndax bis bu nekk dañuy dugg suñu biir kër yi sàcc la ñuy yor duñ ci mën dara te si mënta yor morom dañoo bëggoon nag kuñ ci dimbali bu baax état bi nag dafa war a wa dafa war a yónni ñoo xam ne day dugg ci population bi waaye ñi ñi ko nekkal fii ñi ko nekkal fii moom moom moom euh, li ñu def awul yoon ndax ñoo dox suñu diggante état bi lu ñu bëgg ñu jàllaleel na ko duñ ko jàllaleel dañuy ñëw nax dañuy nax état yi fi nekk dañuy nax état bi waaye liggéey luñu ko dara te Macky Sall bu fekkee na ni bëgg naa jàll wala leen day wala euh, loolu bu bëggee jàll na ñëw sur le terrain wax ak nit ñi seet li ñu bëgg mu dina ko defal ndax ñun kat ñun xam lañu jànguñu sax waaye dox nañ lu bari ndax ñu fi ne moom kenn mën a dugg na ñëw wàcc ci terrain bi wax ak nit ñi bu bëggee gañee nit ñu bëgg mu defal na wasalaam réew mi de man li ma ci naqari ak li ma ci neex laa bëgg wax Touba gi nag moom fi laa nekk Madiana fii laa nekk ñu tudd Baye Diop mbaar yi ma met boxeur ci mbaar yi li ma naqari ci fii nag moom mooy ñàkk yoonu ah, ndigal yoonu saam bi daal bëgg naa moom ku ma ko ku ko ñaareel baa tamit bëgg naa ñu changer comportement xale yi ñu saa seen comportement bu taalu bi yoonu saam bii nag man naa bëgg naa ñu defaral nu ko defar bi jëng bu dee réew mi nag moom la ñuy naqar loolu ma gisaal nag man amul leen lu ma naqar ci moom ndax ba muy falu mu ma fekk bitim réew la mu fa jot a wax nag moo di man faluma faluma kenn ndaxub xaalis damaa bëgg su ma fal nu ànd liggéey liggéey bi muy liggéey nag man gisaguma ci sama bopp noonu waa Touba gii mar ah, yoonu ndigal wi daal gisaguñ sunu bopp akom ndox te bëgg na nañu mu am yoonu ndigal wi daal moom nu gën a ñor akom ndox ak gone yi saa seen comportement yi daal loolu lu ma naqari la ci Touba gi comportement yi mooy lan comportement yi moom eh. saa comportement yi moom mënuma ci eh, jaar ci lépp eh, boo nee boo nee changé comportement rek dinañ war a xam li ci xew ndax roy mag ñi roy li fi borom dëkk bi sàmmonte ak loolu loolu mooy roy xam comportement yi man nag maa ngi dëkk Touba guy sagal ca biir dama fa naqari nag amunum courant amunum ndoxum la da guerre ndoxum forage la am te day coupé ka dem bëgg naa ñu wutal nu fa courant bëgg naa ñu indi nu fa ndoxum la da guerre dëkk bi nag leneen naqariwuma fi dul loolu ma gisaal nag man defuma dara defalu ma ko dara defuma dara tamit li mu yore réew mi tamit moom ma ci ŋaañ moom ma ci defar Ablaye Wade nag 100 pour cent la buy taxaw. réew mi sëñ bi li ma ci naqari bari na trop parce que Macky Sall man ci ñi ko woote laa bokk mais vraiment daal gisuma ci sama bopp bopp réew parce que Macky Sall man dama daan daw diggante réew ak réew. diggante dëkk ak dëkk laay wax astafurlah daan ko jaayal ay carte APR mais ba léegi daal la ma taxoon ma ko doon def gisuma ci daal gi ma nekk kër sëñ di Moxtaar ga ba fii ba ba ngay dem Ediport foofa ngay mën a gisee tëli fi ci des lépp amul benn tëli yoonu suuf dong moo fi nekk muy feneen muy feneen ci Touba te Touba xal yi manqué nan ko manqué nan ndox manqué nan tëli te loolu lépp mag Sall waroon na cee jàpp waroon na ci ki señ bi nak d'accord fi Touba mom waroon nañ ci japp bax waye nak rawati na nga xamni moy mooy président Sénégal. Ah, réew mi di wax dëgg yalla mom jamono yi dal ray gi ñi ray xalé yi mom met nañu lool met nañu trop ma sha allah loolu moom naqaru nañ ko trop. waaw gore ndaw yi ñi ray dal met nañu waaw. lan moko mëna safara sa xalaat. ah man de dama japp ni moom. Euh, Eh, dama jàpp ni daal ah. kilifa yi war nañ cee taxawaat baax ñi yor njaboot yi war nañ cee jàpp bu baax a baax ñi nga xamante tamit ñooy jur war nañoo eh, xool seen njaboot baax a baax fi ñuy nekk gouvernement bi tamit war na jàppale nit ñi bu baax a baax a baax ci wàllu boobu loolu daal moom métti na trop. li naqal si réew mi bëri na trop ndax parce que dañu jot yàlla nga gis xale bu ndaw a ah, xam nga nekk si benn affaire di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey du am dara xam nga sa benn morom góor jaar fa dajji ko yóbbu ko yow tamit ngay def ne moom wala ngay gëleew loolu tamit mu nekk la xam nga barke dem daa yàggu dara sama benn mbokk béykat bu nekk fii xam nga loolu daa jël place am jënd ko ay waxaabu yu bëri xam nga tamit loolu dafa métti quoi chaque jour ñun dañu am lu ñuy nañu wutal lamp yu doy wutal ñu courant bu doy wutal ñu tamit ay gardien yu doy su ko defee ñu li ñuy fay ñun ñu xam li ñuy fay waaye tamit bu ñu su xasee taw dafay taa comme ni mbokk